ñoo fo faam en tout cas la presse kaddu bi laa leen bëggoon wax film yi laa leen bëggoon baaxee ma xamal len li xew démb ak nuñ ko doxalee su ma ko waxoon te awma preuve am na ñoo xam ne ne xam nga leen ci ñu ñu mënee manipuler mën nañ koo doxalee leneen looloo waral nag lii avant sama discours wala may xalaat di wax deme ko gënne joxe film baa ngi nii na ko adduna bi yëpp gis sama kër démb lañ dem police yi ànd ak Jérôme di le garde corps bi ñu jàpp noonu la police am nañu capacité tey képp ku Jérôme ko woon ci wàllu téléphone wala sëkk ak moom dara ñu tracé ko nañu xool man xam naa ko lool je le connais mais jokkoowuñu ci wàllu situation man ñu war ma enquêter loolu amul te loolu même buy am dugg sama biir kër quand loolu sama droit la dama ko war a yëg xam ko jiitu leen ubbil mais buñ ma fekkoon foofu ne dogal ubbi te awma bo bon munoon nañ ma yee mais du ma ubbi ndax kayit moo may ubbiloo kayit moo may ubbiloo waaw lii daal bëggoon naa ko baaxe sénégalais ñu xam li xew film yaa ngi noonu euh, police nationale aussi ak gendarmerie nationale yëpp ak armée nationale ak opinion internationale lii laaleen doon baaxe ngeen xool ko gis ko xam ne lii xew na démb te loolu reculu démocratie la mbir la mu xam ne dafa doy waar ndax nit mu moom këram yàlla moomal ko ko wax dëgg yàlla dafa am nuñ ko war a doxalee weddi ko yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm presse bi di gërëm ñi fii teew yëpp merci beaucoup maa ngi jaajëfal ñëpp allah jaaraamoon jaara merci beaucoup